asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki téléspectateurs yi jàkkaarloo ñun di ñu seetaan ci seen télévision bii di Lamp Fall TV noo ngi amaat mbégte di àndaat ak yéen ci jataay bii nga xamante ne bii moom lañu ñu duppee ëttu murit bokk yi ngeen dañuy topp ci ëtti Serigne Touba Xaadim Rasoul yi ak ëtti njabootu Serigne Touba gi. tey jii nag ñu tàbbi ci ëtt boo xamante ni bii kenn la ci njabootu Serigne Touba Xaadimu Rasuul waaye kenn la ci ñi jaayante ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul ci liggéeyal ko liggéey bu rafet. moo tax ñu àndandoo ak suñu caméraman di leen nuyu nuyoob lislaam di jiital ci nuyoo boobu ki yàlla teg ci bopp yoonu murit di Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal yàlla sunu borom may ko fan gudd lool waa ànd ak wér yaram dolli ko kattan ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko te ñu ànd moom te am ci ngërëmul sëriñ bi di jagleel ab ziar nag borom jataay bi di sëriñ Abo Mouhamed Mbacke xalifatu Cheikh Mouhamadul Mamoun Mbacke di ñaan sun borom may ko fan wu gudd lool wa ànd ak wér yaram ba naal yi nga xam ne way juróom bu baax wa naaloon na ko ak magam ya suñu borom may ko kàttan ba lépp mu àggale ko te am ci ngërëmul sëriñ bi te ñu ànd moom. mbokk yi ñu dëgmal bis bu am solo di bisu fàttaliku waaye di bisu nafaraat jikkoy waaju baax waaye di bisu murit saadix bu liggéeyal Serigne Touba Xaadim Rasul di bisu kenn ci njabootu sëriñ Touba gi di soxna may Maymunatu Mbàkke Kubra mbokk yi bis boobu xam ngeen ne fukki fan lay doon ci weeru koor at mu jot ñu di ko fàttaliku ñu toog fii nag ci ndigalul sëriñ Abo. ci kër kenn ci ak njabootam di sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir Mbacke te ñëpp xam soxna Maymuna ni mu demee ak Cheikh Abdoul Khadir ñu bokk sëriñ Touba Khadim Rasoul ak soxna Aminta Bousso ñu fas yéene rek taatanaat ay kàddu ci fàttaliku jikkoy saalihaat boobu jamono lëj na mu mel ne nit ñi dañoo amatut référence wala dañoo amatut fu ñu mën a roye waaye yaakaar naa ne ku déglu. jëmm ji nga xam ne moom dañuy fàttaliku taatan ci kàddu yi kii nga xamante ne bii damay wax ne waxtu ne war nañ koo ñaanal yàlla mu gën a gënal guddal fanam te gën a dolli ak wéram te gën a leeral aw làmmiñam te gën a leeral ab dënnam ndax denc ci mag ñu baax ñi moo fi nekk te saa yu ko fàttalee ñu amaat fu ñu teg suñu tànk waaye day mel ne lëndëm gi ne woon ci leer weer wi yoon wi day tuxu moo tax mu di Cheikh Mahamadul Moustapha ba jóg jafe la jógoon waaye ba taatan jafee la doon taatan ba tey jii ndaali ku ci tànq pot war nga ko ne jaajëf ndax ci digg taw ba la ko taatanoon ñu fas yéene ànd ak moom rek ginaaw bu ñu ko nuyoo jaare ko fas yéene waxtaane lenn ci jikko kooku nga xam ne doomi Serigne Touba la woon waaye taalibeb Serigne Touba woon ca bokk ca mag ña ba noppi nag liggéey liggéey boo xam ne ba fii ñu toll àdduna war na koo mën a fàttaliku waat eh, sëriñ Moustapha. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu mboolem mbokki jullit yépp di nuyu mboolem mbokki taalib yëpp di leen sant di nuyu sëñ Abu Mbàkke mi nga xam ne moo nekk ci jataayub sëñ Modou Mamoun jiite it kër Soxna May. di nuyu it mboolem njabootu soxna May gépp di leen siyaar di siyaare di siyaare bokki julli yi ñuy seetaan yëpp di leen ni ko Fallou waxee rek sëriñ eh, so suñ bàjjan soxna May lañ bëgg ñu fàttali ci ay jikkoom suñu ay wax ma ne ma dama bëgg nga waxtaan ci ñu fàttali ko dara ci ay jikkoom moom nag yàlla defoon na mu am dund bu riis boo xam ne ki ki nga xam ne mooy riisal muy sëñ bi moo ko defal <laughs> ki nga xam ne lu yëngu fi barab moo ko yëngal moo ko defal ndax mi ngi ganee àdduna ca jolof fa fala fala ganee àdduna at moomu la sëñ bi génnee xasiid ak allahul haadi daal di koy eh, taalif muy bu eh, ci ne juróomi way la allahu juróomi way la juróomi way la ah, yàlla mi gindee la la tënki xasi ñaari xasida yi kon loolu rek am na lu teg tegtale yàlla may ko nag taw feexi waxtu wa muy gën a àddina sëñ bàkki bu su sëñ bi woo na ko fala ko fekk ndax sëñ mu laay daana nettali naan fekke naa eh, yoon woowee maa doon sant sëñ bàkki bu sa te nee na fa ko fekk li ma desee laaj lu desee leer lu mooy ba xam ndax moom la ko sëñ bi joxeloo tur ba am déet mm. loolu laa fàttee gëstu ci ci moom waaw waaye nee na moom nee na fa ko fekk mm. ah. te ba ñëwee sëñ sëñ bi sëñ sëñ bi ko daal di wax sëñ Mbàkke waaw mm. ah. kon noonu la mbiram demee foofu la gënee àdduna ca Jolof moo sëñ Abdoulahi borom dër bi ak soxna Mariam ñooñ la maasee loon na mu xaritoon ak soxna Mariam suñu woon sa soxna benn fàllu ñooñu ñooñu la maasee loon yàlla may ko taw feex nag foofee la gënee àdduna yàlla defit mu fekk fa sëñ Mbàkke bu su ko waxee am am am leen ci sëñ bi wax <laughs> du segeen lépp la wax ci rajo moom sax waaw àdduna yàlla def bi sëñ bi ñibbisi nag fii Eh, ci eh, njaareem bi mu tolloog ndaam la fi bàyyi maam tubb Bousso ñoom ñu ne fi moom nag bi matee jàng sëñ bi daal di wax ne sëñ daam na ko jàngal bu mbott mu daal di jàng ci sëñ daam nekk ndaw fa ak sëñ du borom dër bi ak eh, sëñ Modou Mahmoud mooy bàyyi xalifa bi si Maam Mor Jaara foofu waaw ñooñu la fa nekk ndoola waaw jiil boobu la fa nekk ndoola ñu bokk di jàng ci eh, ci ci ci ci sëñ daam mu yàlla dimbali ko mu njàngam ak gaaw lool sëñ daam yi eh, ndigalu sëñ bi loolee tax mu teg ko ci yoon way tax mu daal di mën a mokkal ñu daal koy def ni ñuy def góor ñi rek ba mën a mokkal waaw ah. boobu ginnaaw bi la loolu xew waaye loolu xewutoon waaw ah. bi bi sëñ bi ubbi buntu boobu la loolu xew yaa ji mokk jigéen ji mokk la bi mu jàngee ba mokkal nag ba bindub kaamil la ñu fab kaamil ba ànd ak moom nag fekk ñu ngi koy jàngal liggéey ci biir kër gi bi mu àggee nag sëñ bi daal di alhamdulilah bi xolam sedd bi ñu ko nee njaareem xol bi sedd lool mu daal di koy mu daal ne na ma nañ ko nattal fukki àndaar mu dem defaral ma ko saasa mu dem defaral ko cere lay mm-hmm. mu defar ko ba mu àgg ñu mel na mu war a mel mu ne ah yaakaar ne la ma gisoon gànnaar ba di ko xayma yaakaar naa euh, kayen bii de moo gën a yéemu ba ma gisoon te yaakaar naa lii mu ci boole muy liggéey bi kooku mënu ko <laughs> waaw ci moom xolam sedd ci moom ca la nag njaareem maanaam jógatu fa mu nekk di ko yar di ko wax defal nii di ko wax defal nii waaw la suñu soxna nee na yu ci bari soxna may nettali na ko ni yi ci bari sëñ bi ma ko jàngal lu ne mu ma ne moo ma eh, dee ko defee nii boo koy def dee ko defee nii di ma jubbanti ba lu ne ma xàmmee ko waaw te te te te lu ci ne ci la ma ko doon defee ba mu yàgg mu fab soxna Fat Dieng mi nga xam ne moom mooy ab taawam te moo ko jàngal ak taalibe daalaalal ko alxuraan daa ko jàngal ndax boobu suñ bi xëtut ne ko nag demal ci soxna Faati del jóge fii di dem ci soxna Faati muy këram googu mu jàngal ak taalibe <laughs> soxna Faati nag di ko jàngalu taalibe de ko def moo tax mu soxna si daa wax ne soxna Faati mooy sama sëriñ di ko jàngal ak taalibe ni ñu war a def ni ci sëñ bi ak fi ñu war a teg sëñ bi ndax moom soxna Faati moo ma koy jàngal mag ñi nee nañ ma ci te ngi ko jëlee ci waa Barsax ñu ne sëñ bi mosu ko woo mukk mu ñëw te defu ni maam Cheikh Fall day raam day raam ba jub sëñ bi te lu sëñ bi wax mu ne ko mën naa ne bu ko yónnee ci taaxee lu wax mu ne ko mbàkke mën naa nekk lu mu wax mu ne ko ndax dana fa am mu ne ko dana fa am de lu sëñ bi wax mu wax ne daal de <laughs> kookee nag la ko booleel ba mu jàngal ko taalibe ba mu am diplôme taalibe mi <laughs> kon loolu ndimbal la loo xam ne moo feeñ ci ab dundam waaw yàlla may ko tawfeex daanaka foofu taqali ko wutug fekk bi ndax euh, sëñ Moustapha may mi dib taam sa mm-hmm. ci biir kër ga la gën gënee àddina waaw mm-hmm. ah, ci biir kër sëñ Tuubaa la la <laughs> nga mag ñi ko fekke woon sax gis na laaj naa ko ci mm-hmm. <laughs> ci biir kër ga la gënee àddina <laughs> kon loolu tawfeexal la ne sëñ bi nangutoon mu sori ko kon yàlla may na ko tawfeex mu taxook sëñ bi xam bëggu sëñ bi xam bañu ko sëñ bi moo tax léppam jublu woon ci yàlla jublu woon ci sëñ bi te wàcc àdduna loolu mooy dund soxna si ko tënk lii mel nag moo tax moo taw ak tawfeex ji mu am ci sëñ bi moo tax njabootu sëñ Tuubaa gépp tàmbalee sama tërandoo ba ci Seex Muhammadul Murtalaa ñëpp bëgg ko ñëpp safoo ko mooy mu bëgg ñépp te ubbi ubbi ubbi mag ak ñëpp mm-hmm. ndax sëñ Mourou Sarr daana ko téye fii ci kër Soxna Xujja Jóob mm-hmm. di ko fa téye ñaari weer ak ñett waaw mm-hmm. sëñ Mourou Sarr moom soxna daana ko téye fii ci kër Soxna Xujja Jóob di ñaari weer ba ñett <laughs> te loolu ñu ko da ñi tawfeex yi ñu ko am ci moom bëriwut kon loolu feex la mu mu tuddee ko it doomam ji nga xam ne moo fi jógee bëkk dem muy soxna may waaw moom la ko tuddee waaw boo foofu la ko daal dalal nag foofu seen foofu ñu dëkkoon ñooñu waaw foofu soxna Soor Jóob ak soxna Xujje foofu ko daal dalal daanaka tey ñetti weer léegi suñ euh, la ko dalee ci suñ Muur Musaa nag Cheikh Fadal ba ci Cheikh Modou Mutala ku ci ne xaritoon li war ci bokk sëñ Tuubaa bëgg nu mel ni ku ci ne nga meloon nag moom mooy ngeen xaritoo doon benn eh, eh, ku ne rafet sa moom morom njort noonu la loon ci ñooñu soxna Fat Dieng mii nag mu def ko sëriñ ñeneen ñi mu bokkal sëñ Tuubaa ñu jigéen ñi ñëpp mu def leen sëriñ loolu la mag mag waaw la mag mag bu dee doomi sëñ Tuubaa la loolu la mag mag bu jubee bunt bi du dugaale daal yi ci biir te fekk moo lay mag loolu mag ñëpp seeral nañ ko bu ñëwee bu ci bunt bi rek day wàcc daal lii <laughs> te te loolu fas gu mu am ci sëñ bi ak xam gu xam sëñ bi ci loolu euh, xam nga am na mag moom ma sa wax xal yastawi la seen yaxlamuuna wala dañoo xam ndax dañoo fekkee sëñ bi waaw <laughs> li ñeneen ñi ñemee duñ ko ñemee <laughs> ñi ak ñi duñ yem. dëgg la sëñ Samba Aminta Diop mi moo ko sox ci lu may gëstu ci moom mu ne hal yastawi lasina yaalamuuna wa lasina laa yaalamuun <laughs> ma ne ko ah yënguñ ah, ñun dañoo xam ndax dañoo fekk sëñ bi <laughs> kon nag tawféex jooju la ko yàlla defal mu daal di déggoo nag sëñ Abdou Xaadir da daa ne soxna si léeg-léeg xamal taalibe ak taalibe ma mooy ku taalibe rek la mën a xaritool mm, ndax gisoo ah, moom soxna may daana niñ mm-hmm. demee woon mm-hmm. gisoo sëñ Moussa Ka ni mu demee woon. Mm-hmm. gisoo digganteem ak sëñ Blaat fi mu àgg. Mm-hmm. <laughs> Ah, la mm-hmm. waa ñëpp déggoog ñoom ñëpp suñ soñ moom ñu nekk ñu nekk benn moom dëkk ci këram moom suñ soñ bu ma ñëw lijjanti kër bépp ci donga yeeg ñu meroog ñu xuloog ñëpp suñ soñ moom day wax bay leen bu soxna may ñëw. moo koy lijjanti <laughs> bu ñëwee moom lay lijjanti loolu lépp. lu mu ci def rek neex na ko. Mm-hmm. Ah, non foofu la seen diggante àgg. Mm-hmm. ndax sëñ sa sëñ Saaliw ma sama ne wax naa ko tey boo fekkee soxna mooy ne ko ah soxna si laa bëgg a jaxasoo lool mu ne yii damay bañ nga doon <laughs> nee ne ko yii soxna si dama xam ci moom la damay bañ damay bañ ngeen ngeen nee na di daal ma jot yi <laughs> ah waaw du <laughs> nee na ginnaaw bi waaye nee na ginnaaw bi ma demee ba jot ci. ba mu ñëw fa. ba gare ma. nee na la mu doon xam naa ko nee na ne lee taxoon suñu sooy ba <laughs> eh, kon loolu suñu sooy bi laa ko di mooy kon nag loolu noonu la meloon ak bokkam. noonu la kon li sëñ bi bëgg. ci eh, te te ko ci ñoom. loolu rek moo feeñ ci moom. waaw lim sëñ bi bëgg te fàgg ko ci moom tam am taw tawféexe nag yàgg ak sëñ bi. ba ba yàgg rek da daa mën jural lu bari daa dala day jural lu bari loole nag moo waral mm, bëggu sëñ bi rek ci la newoon lépp luy ittee sëñ bi ci la newoon njàngum xasaayit bindi xasaayit jàng alxuraan bindi kaamil loolu rek moo doon ittee jokk bokk te te ko jokk ci ñëpp nag nga xam ne laay wii may bëgg a wax li ci ni lépp doon na ko def walladina yasiluuna maa amara allaahu bihi ay yuusala wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna soo al xisaab soo al xisaab walladina sabaru btigaa wajhi rabbihim wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma rasaqnaahum sirran wa alaaniya wa yadra'uuna bil xasanati sayyi'ata ulaa'ika lahum uqba daar janaatu haddin yadxuluunahaa wa man salaha min aabaa'ihim wa azwaajihim wa durriyaatihim loolu yàlla boole na ko ci mooy ñi nga xam ne dañuy jokk bokk te ragal yàlla tey ragal soowul xisaab ñaaw euh, këlkinuk ëllëg nga xam ne ñu ngi koy bàyyi xel di ragal di ko ragal walla si na sabaru ti xaawa ci dem ñi nga xam ne dañuy muñ waxtu wu ne ngir sàkku ngërëmul yàlla waa xaamu salaat ñi ngi taxawal julli fu ñu toll waan mi xoo mi maari soxnaahum ñi ngi lu leen yàlla jox ñi ngi koy joxe te yàlla tax waaye dara ona bil hasanati sayyiat lu lu nar a ñaaw ñu jeñee ko lu rafet ñooñee di lahum xuba déer mhm. mujj kër googee di ñoom laa ko del mhm. muy fan muy jënnaatu àddina mhm. danañ ko tàbbi ñoog seen waajur yu baax ak seen njaboot gu baax waaw ah, tey malaaka yi dañ leen di nuyu bu baax di leen wax salaamun aleykum bi ma sabartum <laughs> fa neex ma xuba <laughs> kon loolu ci la ko yàlla boole ndax yàlla moom la mu waxoon du ci jóg muy góor gu farlu ak jigéen ju farlu loo ma defal du ma ko sànk danaa la ko fay fastajaaba lahum rabbuhum la waxoon ci sourate Ali Imran annii laa udiihu xamala xaamilin minkum min dakarin aw unsa baadukum min baad man wuyi naa leen ndax man du ma sànk jëfi góor du ma sànk jëfi jigéen ne man ci saalihan min dakarin aw unsa wa huwa fala nuhyiyannahu xayaatan tayiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu ya'maluun loolu la jëflante ak soxna si ku ma defal lu baax moo xam góor nga wala nga ngay jigéen danaa la dundal dund bu teye ci adduna ba noppi fayee la nag lu gën a rafet la ma doon defal boo liggéey loolu nag moom la ko defal defal na ko xayaatan tayiba ci adduna te ñu ngi séentu ne dana ko defal lu gën a rafet loolee xam nañu ne sax loolu xam na séntuwuñ ko dañ ko dañ ko wóolu waaw dañoo wóor ne bi ahsani maa kaanu ya'maluun rek la ko yàlla fayanteeg moom ndax fastéefam ci sëñ bi euh, sëñ Abdou Lahad daa wax ne mooma Daaru Salaam xam nga daw fa jóg nee na yoor yoor gu rek ca mango ga lay toog maag moom waaye léppam léppam sëñ bi la ci moom laa ko déggee mu mango ga koy fekk li ñuy liggéeyal sëñ Mourou Mamoun lépp ci day toog ci kanamam ne def leen lii def leen lii te booba mënoon naa ne ci néeg waaw fas séef boobu laa xam ci moom bëgg sëñ Tuubaa laa xam ci moom way ak xol bu laab ci moom laa ko dégg <laughs> ci loolu kat ci fanam ñu ko laa ko dégg ci moom ci fan ñu mujj rek la la ma doon wax ba nett ba ba nett li ma lii ndax boobu ma nga beral mu mel ne itam dañuy wax ne bu ñu doon ràññi ci jigéen ñi ëpp xam-xam te dàq woy ci yoonu murid ci la bokk. yaa ci la bokk waaw noonu la mel moom koy woy woyam yi gis nga teg ngeen ci seen bët. waaye wu mu woy. buñ la ko wax danga nga yaakaar ne sëñ Moussa Ka ko woy <laughs> rafet gi. ak pasteef ak nasug way wi waaw loolu moom yàllaa ko yàlla ko ko may eh, ndax moom ñoom ba ñu nekk njaareem it sëñ bi leen daa yebal mbusoo bi ñuy jàng ñuy jàngi ñuy jàngi xam-xam fañ daa mbusoo bi ci foofa mooy foofu suñ mbàkki bu suñu dëkkoon rek dañ kër yaa toxo rek bu léegi ba waaye suñ soñ bu nee na ma soxna Xadi falaa daa ànd moom mu jàpp sama loxo di ma yóbbaale di jàngi moom ba alxuraan booba nee na moo moom nee na mbusoo bi googi la ma daa yóbbu moom suñu soñ mu naan ma booba ni muy soree ci man <laughs> ndeke ndeke wuti xam naa mu ne ma xam naa boo tolleeg ci ndaw sa jéego yu gàtt yi mooy tax xëy na waaye mu daa soree ci man daal <laughs> Eh, fa la ji mm. eh, ñoom ñit fa lañ leen doon yeewal ñuy jàng xam-xam ñuy jàng téere yi ah sëñ bi bi da leen daa teg ci yoon lool mm-hmm. ah, lool lool mm-hmm. jaamu yàlla gi jàngum xasaayit mi ah, ah, njàngum xam-xam mi ba xam sa diine yépp moo koy sàmm ba ba ba ba dara du ci jàngar boole kook nag ñu am feex ci moom lool waaw ndax. mel na ne ku am yitte la ci doomu aadama surtout nag ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole. ndax si am jafe-jafe xel ak ah, moom mooy li ma la wax ne waan foxo mi maari soxnaam si lan wax laa neetal <laughs> loolu la ñu dund moom mboolem ñu ku mu jàpp ne néew nga doole rek mm-hmm. eh, ab taxawaayam jëmee jëmee na ko ci moom. Mm-hmm. soxna Awa Awa Touré mi ndeysaan mi daana ma ci nettali yu bëree bëri ba <laughs> mi fi jógee bëkk démb nga ne ko jege woon la daana ci nettali yu bëree bëri ci maanaam ni nga xam ne nii la doon dimbalee ñi néew doole ak ku mu yëg ne ak ak ñoom ñooñu sax bu leen ciy yónni ni muy bëggee ki néew doole ki muy dimbale kenn bañ a xam ne mu ngi koy dimbale <laughs> ndax day ànd ak sutura te guddi lay doon loolu loolu loolu noonu la doon doxee ak ak ak taalib yi mu doon seqal yëpp waaw yàlla euh, suñu soxna bu nee na ma ndeysaan ba ba mu yàggee koso xam nga bi wéré di yàgg na koso lool mm-hmm. ba mu fa jógee nee na ma téewut ñëw na sama ñëw bi kër gi booba sax wàcc oto bi ñëw waaye daa taw ci oto bi woo ma mm-hmm. bi ma ñëwee lu mat a wax rek wax naa ko woon foofu soog a jàll mbàkke googu mu doon ñu di ko jéem a jàllale mbàkke mm-hmm. waaye nee na ñëw na ba ci sama kër gi te boobu wéradi na <laughs> na waaw waaye lu ma ta dénkaane rek ndeysaan wax waxtaan wax nañ ko foofa euh, dimbali nit ñi dimbali ku ku euh, néew doole it itte itte ju kawe la ko defoon maanaam mooy moo doon itteem ju kawe. Mm-hmm. waaw yoo xam ne daaw tàqali koog moom mm-hmm. waaw. Mm-hmm. ginnaaw moom liggéeyal na loolu loolu na lislaam mm. suñ borom it fay na ko ci biir bokk gi mm. ñu koy waajal ñu koy taxawal bis ñu bokkal sëñ Tuubaa ak mboolem nag bokk yi ci des mm. mboole ndax eh, sëñ mooy dàtt bi rek mooy garab gi bi nga waxee sëñ Tuubaa rek nu ci waaye laale rek dugg nga ci bokk googu waaw waaw mun ndax eh, ndax eh, ndax na caqu maam diggal ba lay raas ñi fi nekk ak fi nekkul asal du seen <laughs> mooy mooy caq maam bi diggal bi <laughs> diggal diggal bi <laughs> wa waasitul mutaqallidi loolu waykat bi wax yi kum xam ne mbokk nga ci foo mën a bokk ci maam maaram bokk googee jàpp na ko te mi ngi ko doon dundal sa diggante moom taalibi sëñ Tuubaa kum jàpp ne nekk la la ma samaam golo waxoon ne ma sëñ Fallu moom la ko waxoon mm. ne nee na nee na jaar doon siyaari soxla sëñ Ousmane bu sa dem mu ne ma nu mu yëgle ma mm. nee na sëñ Fallu daal ne ma agsil ma agsil ba nuyoo mu ne ma xanaa xamu leen man ku gën a sëñ bee rek damay <laughs> gën a rek te yéen seen waajur dañoo yàgg ak sëñ bi <laughs> ku gën sëñ bee rek man ku gën sëñ bee rek damay mm. <laughs> <laughs> soxna seen nag foofu la ne woon lu gën a sëñ wee rek lu gën a sëñ wee rek da koy gënal lu gën a sëñ wee rek dégg nga am na ko ne ma ku ne ma nañ ànd nañ bu ñu gisee bu fa dajee ku kii day wax na kooku jiitu maanaam bu jiitoo ko xam ne daje na fa booba ñoom ñëpp ngi fi xam moom te ñu ci bari moo leen mag ndi day wax ne na kooku na njëkk na njëkk a dugg dugg na ko nangoo dugg ko njëkk a nangoo waa këram nañ bindoo mooy ku ne ngay wut sëñ bi sa morom hmm. ku xam nga ne boo wutee sëñ bi sa morom yi da nga ko fekk kon euh, moo tax lim bëggoon ci ñoom muy bëggante soppante wóolante doylante yàlla def na ko ñoom moom mii nag dundam bi loolu képp la firi waaw firi na loolu suñ bi ñaan ci eh, mat la ba ci sifaay bëgg ñoom ñëpp ñu mel ko te si Abdou Khadre daa wax ne ñaa xam nga ne xamul ne ñaan ga sëñ bi nangu ñaanoon ci mat la bu sifaay moo nangu ci noon mos naa ko dégg ci moom waaw moo nangu ci noon waccal kabira na yu xéenuli saxir na mag ñi dimbali gone yi waccal xoloo ba naa xalaat tawaadu na ñuy bëggante ci xuloo ba na xatta bilaa taxasudin wala taxasudin déedéet wala ci xuloo buñ xëccoo buñ iñaanante wala taxaasumin buñ buñ xulonte wala tadaaburin buñ fexelente wala tabaaxudin buñ buñ bañante wala tanaafuri buñ foñante ba ba bañ mujj mën a àgg nag xataa nasiira muslimin xaasihin wa muminin muxlisin saalihin loolee la sëñ bi te Seydou Xarit nee na ci daa nangu ci noonu. waaw loolu wér waaw kon nag bisam buñ ko dee fàttaliku ku fa ñëw la nga war a fàttaliku mooy ndeke de yéenoo ak say bokk moo gën wasulhu xayr yéenoo ak say bokk moo gën ndax soxna si dadaa defare waaye kenn mosut a defar digganteem ak kenn hmm, loolu nag kon ku ñëw ci bisam danga war a roy loolu fexe ba di defar waaye doo yàq wallaahi laa yuhibbul fasaad fexe ba bëgg ñépp ndax loo loo loo ëmb ci xol bi rek mooy delsi te moom mi noonu la meloon daa bëggoon ñëpp waaye gis nga ko ñëpp bëgg nañ ko waaw daa amoon teggin ci ñëpp ku gis jàpp na ne war na laa jox teggin yu kawe njort moo xam moo mag moo xam yaa ko mag loolee it ku ñëw ci bis bi na ko jàng ci moom xam ne ndeke ay teggin mooy lépp waaw looy wut rek boo yoree teggin da ci jot waaw loo loo loo yorati teggin it ku la mayoonu jinni it te foobu foobu bi yar may la it léegi nga gis ci nibar boroom yi yar fab ko tasex <laughs> moom noonu la doon dundee tey nag loolu yëpp nag li ko ci dimbale mooy sëñ bee ko doon yaral boppam di ko wax defal nii ak bul def nii. waaw ma sa dégg nga ci nettali. Ah. bu doon daajlul ci njaarim. Ah, ah, baraag boobu. Mm-hmm. ci mu ci ci ci ci biir kër gi mm-hmm. signalisé yi ñoom la ko suñu wax mm-hmm. ne daajal leen fii may muunatu mm-hmm. baragu boppam ci ci njëriñ waaw nga ne loola sëñ bi daaj suñu allis nga sëñ bi nee na suñu allis yi ñoom da guddi lañ ko doon daaj sëñ bi nee balaa fajar waaw may muut après Eh, xaas la loolu xaas la eh, noonu la demee nga ne signalé see ko jiite <laughs> daal di woo ministre ñu daal di ñëw nu mu daal leen taxaw sëñ bi moom xasee joxe ndigal xam nga lool xaas la waaw waaw kon nag yàlla na yàlla taas ci barkeem rek eh, yàlla nañ jànge ci ab dundam ci jànge rek sa lépp dana jag te sa sa digganteeg say bokk dana rafet sa diggante bi ndee fi dana rafet mm-hmm. danga gën a bëgg sëñ Tuubaa it mm-hmm. da gën a bëgguk taalibe mm-hmm. waaw loolu noonu la meloon ndax euh, looloo ko déggale woon ak ñëpp looloo ko mayee nit yi mu am ci ñëpp looloo ko may it turandoo yi mu am yëpp looloo ko may naa nu ci yàlla dimbale ñu ñu ñu yàgga ñu yàgg ko ko màggalan ñu yàgg ñun ñi ñu yàgg ko ko màggalan te te liñ koy def lépp sëñ Tuubaa nangu ko ndax moom kat lu bokkut ak cër boobu mu am ci sëñ bi ak bëggam sëñ tubaa ak kooku taalibeem ci sëñ tubaa rek tax nag ko sonn ci bisam wala wala nga sonn ci mbiram sëñ bee day fay waaw <laughs> ndax gi moom moom àgg na ci foo xam ne jéggi jéggi jéggi na ci foo xam ne kawe na njort waaw ndax moom euh, léppam rek sëñ bi la euh, xanaa daa nga dégg ñu ne sax sëñ Babacar Mbaye moom daana ko ñu taxaw foofu ci kii bi ñu wër garab googu de ñu waaw ñu ñu ndax ginnaaw suñu ma suñu mëdu ma taar mbay suñ bi ko defal loolu ñëwal ñu ànd ñu wër garab gii may may jeeru xasaay bi nga <laughs> ko daa def ma barkee rek eh, kon nag noonu la doon xeeñee sëñ bi rek xet gi di ko xeeñ rek mu di ko banantu fu mu ko fu ko gis rek banantu ko lam ca waree jariñu jëriñu mu jëriñu ko ci waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nañ ñu ne yàlla nañ banantu xetam rek ba mën cee jëriñu wa kullu amin wa antum bi xayrin asalaamaaleykum wa rahmatulah aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Cheikh Mouhamadul Moustapha loolu rek moo tax kilifa yi di yónnee ñu ma koy waxee waxtu ne ci ndaal yi saa yu ñu bëggee ndox mu sedd te neex faaw ñu yónnee ci ndaal man faa tànqe pot waaye yaakaar naa ne tànqewaat nañ fi pot ci jëmmi soxna may munatu li nga ci xamle ci ak bëggam sëriñ tubaa waaye boo ci jàngaatee dangay gis ne ndakate it sëriñ tubaa bëgg na ko eh, kon day mel ne ñoom ñaar ñëpp dañoo ku nekk da bëgg sa moroom sëriñ tubaa nag suy bëgg nit ci jëmm ja ak jikko ja lay bëgg kon day mel ne jikko ji bëggoon mu nekk ci soxna may mun a nekk na ci moom waaw day mel ne ci biir ni ma ko déggee Eh, jigéen ju mokkal alxuraan bind ab kaamil dafa njëkk amee ci moom ci histoire yoonu murit mu njëkk koo def ba fii ñu toll tembe day mel ne kon ku bindatib kaamil ci yoon wala jigéen ñi tari rek bay àgg ca daaray maam jaare si sax nangami junniy maam jaare dafa jàngee ñaanuk sëñ Tuubaa gu nangoo ci soxna Maymuna la boo xamante ni yàlla defal na ko ko te loolu dara waralu ko lu weesu lam gisoon gànnaar xemmeem te xemmeem ko rek la ko yàlla faya pay ga nag tàmbale ci soxna Maymuna baak si fii kon yaakaar naa ne fu jigéen ju jigéen ñi lislaam nekk waaye jigéen ñi yoonu murit ju man alquran war ngaa jàpp ne bis sa bis la ndax bu du toon ak moom moo ñu fayal bor booba ca kaamil bu alquran ba eh, Eh, yaakaar naa ne itam jàngee nañ ci fi mu tegoon ay kilifaam doy na sëkk ci ak taalibe nekk ba Kawlax war a fotowu ne dem leen nañ dem tàggu ji soxna Fadja ndax mooy sama kilifa nga xam ne boroom appareil bi daal del si waat Tuuba tàggu ko mu soog ko joxe yaakaar naa ne kilifteef mënut a weesu loolu te loolu déggoon naa ko ci say kàddu kon bis baa ngi noonu fukki fan yi koor gi lay doon eh, di amee fii ci Mubaarak ci këram gii ci Touba. Euh, mu doon jànkatub alxuraan doonoon jànkatub xasida manoon way nag ci arab ak ci wolof manoon it liggéeyub jigéen te daan ko jàngale daan def ay tomb yaatoo yaatu ci jàngal jigéen ñi bañ mën a xam seen farata kooku la bisam aksi di soxna Maymunatu Mbàkke Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ak soxna Aminta Busa bokk mooy xalifa Cheikh Mahamadul Mamoun day di waajuru Sëriñ Cheikh mu Sëriñ Xaadir ak Sëriñ Moustapha ak ñi bokkal kon ñu ngi séntu ñëpp ci bis bi di ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla ñu yàlla defal ngërëmam defal ñu ngërëmul Sëriñ Tuubaa dajale ñu itam ñuy bannante ko ci xetam googu te buñ xeeñee yàlla nañ ko jariñoo seen bokk taalibe Fallou Galass Sylla moo àndoon seen émission Ëttu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. بسم الإله إفن الدار يالله سفي بقاء به لي فيك يالله بسم الإله إفن الدار يالله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الله في الأقدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا ملاك